mbokki internet te dal leen ak jàmm seen chaîne youtube di Buzz Actu 221 di chaîne bi leen di jox ay xibaar yu wér te wóor abonné leen te bés cloche de notification bi ngir nag dara bañ leen a raw suñu ay xibaar dañ koy daal di dooree nag li soxal xibaar bi nga xamante ni yéen kaay Le Témoin daal dina koy fésal mu daal di xam li nag jamono ji kii di ex masseuse mi di Adji Sarr danañ koy rawale ci diwaanu Angleterre gannaaw nag coow bi nga xamante ni daal dina yoo dox si diggante moom ak njiital Pastef xëccoo wala viol ak menace de mort ba tax nag ñu daal di si condamné ki nga xam ne mooy njiitalu Pastef di Ousmane Sonko ñaari atu kaso yoo xamante nag daf ko war a tëdd wag ak ñoo xam ne nañ si ñàkk seen ay place liggéeykaay loolee mu daal indil ay jafe-jafe kii di Adji Sarr ba tax nag ñu daal woon ko fi tëj ci benn appartement boo xamante ni moom kese moo fa daal nekk waaye nag gannaaw bi nga xamante ni daal woon génn daal di fésal ne ca diwaanu angle terre bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi de le témoin ñoo daal di addu wax li soxal nag wàllum justice ki nga xam ne nag mooy avocat mile di El Mamadou Ndiaye nekk tamit maire bu Thiaroye sur maire moomile nag jamono ji bi nga xamante ni daan nañ koy suspendre li soxal mbubbu avocat mile moomile daan nañ koy arrêté jile nag lañ koy defeere bu ñu sukkandikoo nag suñu ay xabaar liñ koy toppee nag mooy wàllum luubal xaalis bu tolloo ak mi di El Mamadou Ndiaye bokk si uh, parti bu taxawu Sénégal mu nekk tamit njëgiñaale jiitalu uh, taxawu Sénégal di Khalifa Sall ñi nga xam ne ñooy ordre des avocats daal nañoo suspendre li nga xam ne nag mooy mbubbu avocat ma milee ba tax nag jamono ji ñu daal di koy teg loxo ñu koy toppee li soxal wàllum luubal 3 uh, milliards francs CFA li soxal élection présidentielle 2024 kii di Ndiaga Sylla xam-xam màcc loolu ci wàllum électoral ci éligibilité Khalifa Sall ak kii di Karim Wade daal na si indi ay leeral mu daal di xam ne ñoom ñi leen nag jamono daal nañoo éligible maanaam mun nañoo bokk si élection présidentielle 2024 ñu dégmal gannaaw nag bi nga xamante ni daal nañoo modifié code électoral ba tax nag ñoom ñi de mun nañoo bokk si élection présidentielle 2024 ñu dégmal te mu ngay xam ne nag amul lenn loo xamante ni nag jamono ji mun na leen a empêcher nag ñu mun a bokk si élection ngir nag ñu daal di invalider seen candidature yi la élection 2024